salaamaaleykum mbokk yi leeral TV leeral point net ba tey ñu ngi fii ci Thiès euh, tey nag dañoo ñëw fi nga xamante ni moo de gox bi euh, suñu maam ab lay euh, Yakhim noppaloo ñu ñëw nag ci biir kër gi ngir séq ak ay laaj ki tontu njaboot gi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi teewal ñu waxtaanee kiraama yi nga xamante ni nitu yàlla boobee yàlla baaxeeloon nag ko. tey nag bi ngeen ñëwee fekk ngeen fi njabootu soxna si ndax bi ñu jógee si bis bu tedd bi yàggul muy màggal gi. kon tey jii boo leen dikkee laataa bis bi si daanaka di saytuwaat loo xam ne di ngeen ko mën a baaxe jaam yi ak mbindeef yi loolu nekk na tuyaaba ju rëy waaw rawatina nag si kër gi nga xam ni ñëpp rek ku nekk bëgg nga fi xam dara waaw si mu jëm si mbiru euh, Mouhamadou Abdoulahi al su ko defee xam naa lépp duñ ko mën a génne waaye nag si tënk ah dinañ leen mën a laabire loo xam ni euh, képp ku ko dégg di nga am lu wér. waaye boo fa jógee tamit di nga mën a gindiku ci moom bu baax a baax incha allah. bu ñu la doon laaj kan mooy maam Ablaye Yakhim eh, ci eh, tënk rek comme ni nga ko waxee lan moo ciy doon tontu. daanaka kan nekk na laaj xaw a jafe ndax moom ci wàllu boppam daan na faral di wax nii moom nekkul ku ñuy war a xam su fekkoon nekkoon ne ku ñuy war a xam kon nee na ñaar rek ñoo koy xam mu Cheikhul Khadim di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ak maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullahi baabul muridin waaye yàlla si dogalam nekkul ku ñu war a xam waaye si gàttal tey soo xoolee fii si saw jant mu ne saw jant mooy Sénégal wala si biir yoonu murid mboolem ñi nga xam ni tey ñu ngi leen di topp yaakaar leen àdduna ak alaaxira ñooñu ñëpp gis nga seeni waajur gis nga tamit seeni mbokk waaye soo ñëwee ci borom barab bi li lay njëkk a yéem mooy doo gis mbokkam doo gis tamit loolu ñu tuddee ay waajuram donte Sénégal tey li miin ak yoonu murit ñu ngi koy santale Jóob Jóob jooju ko dem ne ko waa sëñ bi ah, Jóob ji kan la bokkal fii si réew mi walla kan moo ay waajuram du la ko wax waaw na ba keroog àdduna tukki du yàgg yàgg yàgg ba kenn ñëw fi ni man ak moom ñoo bokk ab du faqat ñi nga xam ni moo leen meññ di ay doomi boppam di leen daan wax ni yeneen seeni seeni mbokki bopp ndax du yàgg ba ngeen gis bàjjan wala ngeen gis maam wala ngeen gis ndijaay loolu nag mën na mën na lënt xelu doomu aadama yi ndax ñu bari jàpp nañu dana dafa jékki-jékki ni cëpp te fekk demewul noonu nee na ñëw naa saw jant waaye ñëw gi ma ñëw saw jant nag si mbóot laa dikk waaw mbóot googu nag yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la am na tamit cosaan am na askan waaw tey jii askanam mooy foofu li tubaab na li arab naan ardul ijaaz muy suufu ijaaz bu ñu nee ijaaz tey mooy lépp lu lu laal màkkatal mukarrama ak madinatul munawwarat foofu lañ daan wax ijaaz suñ Tuubaa sax boo demee si muqaddimatul xidma baatu hijaas lay lay lay lay lay lay moom lay moom lay jël waaw léegi eh, ña ko fa meññ foofu lañu bàyyi ko muy Abdullahi Sharif ak Aminatu Zaqra ñii ñooy ay waajuram yu góor ak waajuram yu jigéen Abdullahi ak Aminatu bi mu gënee jamono mu ngi indi turu Muhammadu tey soo xoolee bu ma yemoon foofu rek yow sa xel am na ci lu mu war a dem ndax turam boobu Mouhamadou Abdoulahi Mouhamadou Ibnu Abdoulahi Abdoulahi ak Aminatu ñoo ko meññ loolu xamuñu ko woon si kenn ku dul Mouhamadou Rasulullah sa alayhi wa sallam kii del siwaat waajuramu góor tudd Abdoulahi waajuramu jigéen tudd Aminatu ba nopp mu dund juróom benn fukk ak ñett 63 ans la dund 63 ans 1880 la gane jamono ardul Hijaz fii la wàcce liggéey 1943 soo ko xayma xaymaa muy 63 ans bàyyiwul ay góor ay jigéen la bàyyi loolu ba tey tamit beneen misaal la te amoon na fukki doomi góor ak ñeent waaye dana ñii jëlul ngeen jël seen yaakaar di ko def si ñoom sama yoon wu njëkk sama yoon wu njëkk bàyyi moo fa woon ay góor ay jigéen laa fi bàyyi woon sama yoon wi tamit ay jigéen laa fi bàyyi waaye la doon doon jigéen taxawaayu góor la ñu yor nam ko waxe woon doomu góor yi noonu lañ demee ba jeex tàkk fekk amoon na juróom-benn ñoo xam ni moom la duppee maam Cheikh Ibrahima Fall juróom-benn Cheikh Ibrahima amoon na ko si njëkk feeñ njëkk feeñ si góor ñi ñu si des euh, ay maam maami boppam Xusey euh, Xaachim Murata Kilaab Abdou Manaaf Abdou Matlab Abdou Mohamin Abdou Latif ñii rek soo déggee seen tur di nga xam ni kon bokkuñu si culture sénégalaise wala wala culture africaine. moo mën nañ ni sax tur yooyu noonu nga lim ay tur la ci ay maamu yonent rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñooñ ay maamam yaa ngi dégg ak gën jamono tamit euh, Seydina Ousmane ko njëkk a tudd Seydina Ousmane laa la wax radiyallahu anhu bi mu toogee si xilaafa gi dafa wax ni isa daxala ama assasin lu wulida muhammadu rasulullahi wa huwa mahdi bu ñu demee ba gàddaay gi am junni at ak ñetti téeméer ak benn muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama dina dellusiwaat ci turu muhammadul mahdi yu seydina Ousmane de ci saaba la bokk na ci xulafaaw rashidun bi Sëñ Tuubaa feeñee tamit ci la wax ni axyaytu mawlidu nabi min asachin ne tàmbali nañoo di màggal guddi gi rasulullah gën a jamono si ama asachin lañ ko tàmbali <laughs> gis nga ni dëppoo beneen addis wax ni Touba liman balaxa ma aw miyat rabiati min baxdi alfi sanatin addis la ni texe ñeel na ki nga xam ni bu gàddaay gi amee junni at ak ñeent téeméer ku dajeek àpp boobu loolu ñuy wax Touba ji texe ñeel na la léegi nag foofu nag la yëfi leere ndax boobu fekk na sëñ Touba euh, sëñ bi wàcc na si kaw suuf ba am fanweeri at àpp boobu nag moom si la gën a jamono dëgg-dëgg moo tax mu ne li anni wulittu bi awali sanatin fil miati bax baxda alfi sanatin dañ ko ko de gis nga dam dëppoo ak ak li addis bi wax si ab boobu la gën a jamono ba fa gën a jamono tamit si suufu Hijaaz nam fa nekk ak ay waajuram lépp xaybu na tey jii taareex mënut a fexe fexe ba ba wax na ne ah amoon na ku tudd Muhammadu waajuramu góor tudd Abdullahi waajuram tudd Aminatu si makkatal mu karama ba tey ji taarix dafa moo lu sama borom lëm la waaw euh, loolu loolu bi nga xamee ne jóge na foofu ndax bi mu nekkee penku euh, sama borom dañ ko fi nga fenkee doo fi soowee mm-hmm. waxe olof la mm-hmm. xam nga jant mooy fenk du sow mun kon da ngay gàddaay donc gàddaay gi mu war a gàddaay nag war a ñëw sow jant fekk nag bu ñëwee du fi wéet nee na boobu am na ñaar ñoo xam ñu ngi koy xaar muy si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Cheikh Ibra ndax nee na ñett lañu solo yaqin dana olof dafa wax wax bu yàq olof dana ñaar rekk a xam olof da nee na olof dana ñaar rek a xam mu ni loolu wax bu yàqu la nee na ñett a xam ñu ko ñett ci kan ak kan la mu ni xam naa suñ bàmba xam na Cheikh Ibra xam na ñun ñett xam nañu moo tax bi mu bàyyi ko ñii dañ leen wàcc si der bu ñuul moom ñu wàcc ko penk moo tax mu ni yoonu murid su fekkee dëgg-dëgg xamoo di ko waral ne dafay gën nga noppi ndax programme bi si biir bokkul ak bi si bitti kon bi mu jógee Ijaaz juróom-ñaar fukki junni malaayka la àndal bokk si muxarabiin ñoo ñoo daan dox diggante ak jant bi doo gis takk ndeer bi doo gis takk ndeeram te boobu muy dox nii c'est presque en plein soleil doo gis takk bi loolu nag jaaxaloon na ñëpp waaye bi mu demee ba dajeeg Soxna Cheikh Saadi bu xayratu si 1892 si la wax ni malaayka yi mu àndal ñoom ñooy ràbbaloo dox diggante ak jant bi nga gis doo doo doo gis doo doo gis takk ndeer bi ba mu fa jógee 1893 si la nag wàcc si si Cheikh la waaye bi bi nga xamee ni wàcc na Sénégal dëkk bu ñuy wax Kër Njaga Mbay fekk fa ku ñuy wax Cembay Xujja Cembay Xujja moom sunu maam la mu ngi toppoon Cheikh naa Cheikh Sadibou ba mu jébbaloo si moom la ko tuddee Seydina Jibril waaw Cembay Xujja moom bi mu demee ba gisanteeg moom comme gan la da ko laaj ni ko sa tur nan la mu ni ko Mouhamadou lañ may wax mu ni ko sa waajuru góor mu ni ko Abdullahi Chérif Chérif si arab mooy ku tedd mu ni ko sa waajuru jigéen mu ni ko Aminatu Zaqra mu ni ko ah da ngaa nduróog Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ngeen nduróog càllale muy filiation tamat sañuma di la wooyee ba noppi lii ba pare di la liggéeyloo walla ma di la sant dara waaye si ak matam mën ko jàppal ni ab liir laa buy doog a judd si yow danga ko de mun ko dama laa bëgg wutal ñaari tur bu ko defee lii nga indi nii nga nëbb ko mu tegal ko yàpp sa xànc jóob ak décembre jóob foofu lu jóob ji jóge léegi bi ñu ne ko tànnal si ñaari tur yi mu tànn décembre jóob la tànn laaj nañ ko tamit lu sabab nga tànn décembre te te tànnoo yàpp sa xànc waaw mu ni décembre jóob si turu décembre jóob am na baatu dee di faatu képp koo xam ni sa xel mi ngi taxoog ak faatu sa xel dina taxoog yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon mooy sabab mu tànn Décembre Diop lu tax tànnul yàpp sa xànc Cheikh Ibra ay jamono yàpp sa xànc lañ ko daan wax nee may xànc gi nga xam ne dañ maa dañ maa yeboon sa njabi te lañ may yab yab may takk say wi muy yoonu murit waaw muy nag bu ma doon sant boo doon wut sant ay dara laay sant waaye fa ma bàyyi ko amul sant dégg nga de fa mu bàyyi ko dañ lay lakkantele sa turu waajuru góor sa turu waajuru góor mooy moo du turam Mouhamadou Abdoulahi Mouhamadou Ibnu Abdoulahi muy nag comme sant ñëw naa foo xam ni sant mënut a ñàkk laa jël ay dara léegi loolu mooy sabab mu jël ay dara Jóob ji tamit si décembre Jóob la jóge ak yab sa xaanc mu tànn ndax nee na Jóob réew mi miin nañ ko da ko làqatoo mhm. waaw da ko làqatoo waaye soo demee tey si téeram bu tedd bi doo ci gis benn sant waaw kon nag euh, bi nga xam ne dugg si ne tamit si yoonu Mouride 1893 waaw si la gisante ak Cheikh daan defaal bañ gisantee tamit seen gisante boobu dafa mel ni euh, ñoo xam ne yàgg nañoo xamante waaw jàmm sant bi yàgg lool maam Cheikh ni ko lan moo la tax a jóg waaw mu ne ko jokk si waaye jokk gi nag ñett taxul waaw boobu la ñu doog a gis koo xam ne mi ngi jokk di teg ay conditions fukk at ñett daane ko du bëgg àjjana du ragal sawara du bëgg mbooloo moo tax mooy jokk si yow waaw maam Cheikh ni ko kon lan moo tax mun ko dama bëgg ëllëg yomal xiyaamatul akbar bu ñu demee ba góor ñépp tële ma jóg jël yan bi mu jóg jël yan bi gis nga bis ci la ko wax bu ñu demee ba ñëpp tële góor yàlla yëpp tële mhm. ma jóg jël yan bi ñëpp seen dënn rëcc maam Cheikh daan ne ko ah góor ñi de àdduna li muy yaatu yaatu góor ñi bariwuñu daal ko ah xanaa man ak sëñ Bamba mu tontuwaat ko ni ko yéen ñaar ma tax di wax donc am nañu altercation foofu seen diggante waaw waaw mun ko yéen ñaar koo xam ne 13 ans la am ko yéen ñaar yéen a ma tax di wax ndax yow sëñ Tuubaa ñaari ngir la yu bokkul sama ñaari tànk yi laay teg seen ñaari ngir yi àgg si yàlla foo xam ne kenn du ma fa fekk léegi Cheikh Ibra loolu mu ko wax du mën a nangu automatiquement mun ne ko kon doom nañu wéet. mu bëgg a jóg jóg bi yeex lool maam Cheikh ne gis naa ni daal tànk li ma nga jàpp ba juróom-ñaareel suuf fi mu toog Cheikh ne damaa ngi gis loolu ndaal ba baa nga ba juróom-ñaareel asamaan ah, keroog la jàpp nag si mbagg yi yëkkati ko may ko loxo ba noppi daal ni ñetteel bi ñëw na waaw bu dee ñetteel bi ñëw na bala nga ne ñett di nga ni benn ñaar mun ko gërëm gu ñu yàlla gërëm man ak sëñ Bamba moom lañ sama borom fayee sa jëmm ji maam Cheikh Fall wax loolu léegi ñu dugg ci biir nag mu di ko laaj si yàlla lu mu ko laaj mu tontu lu mu ko laaj mu tontu ba mu dese ko benn laaj mu jënteelu laaj bi Cheikh Ibra bu ma tontoo du ko làqati maanaam jébal gu amati ndax booba yàlla mooy arbitré mu laaj mu jënteelu laajam nee na ma xam ko dem ba di ko bëgg a wax ñu fëgg mbagg ndijooram bi ma tee nee bi mu téene muy Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam ne day ko si nopp ndijooram ne ko sa borom nee na soo ko waxee du la làqati te kii mooy ki lay làq mu ko fàll lot naa ci xam ko Cheikh Ibra ne ko xam ko xam nga ko mu naxtaan ginnaaw sa na dana ko naxtaanal ba am li nga bëgg <laughs> te nëbbal sa bopp léegi noonu la def rek ba Cheikh wàcc daa yi nangu njëbbal gi waaye nee na waxuma lan ma mujjee laaj la ko jël sa xam naa ko la jëlu lan ma mujjee laaj xam naa ko ba pare nag bi mu nangoo njëbbal ko mu ne ko nekkuma kuy tële dara waaw lu doy waar a ngoog mu ne ko du ma tële dara lépp lu mbindeef di def maa koy dàq ñaareel ba mu ne ko sama tànk bi bu tegew sa ëtt kër gi lu baax si yow si man mi la jëm si tey bokk na si saabatul kiraam ñi ngi tëdd fi bàq ya si chiffre lañ jib lañ jóge waaw yooyu bu fi xajoon dinañ tubaatu waaw mu defal ko loo xam ne kenn mosu ko defal Cheikh Ibra ci diir bu gàtt mu yeewi ko waaw sant ko gërëm ko waaw ni ko Abdoulahi yaay sama taaw waaw taaw bu noppal bàyyi nga Abdoulahi yaa ma tàqale ak tëkkale waaw ndax yow ku la am koo kenn di ko tëkkale kenn Abdoulahi ni ko man rek am sëñ Bamba sama sang bu sa amula waaye nag bi ñu demee 1930 foofu mooy nag mooy clarification bi 1930 nga xam ni mi ngi ànd ak Cheikh Ibra 1893 ba 1930 soo ko xaymaa muy 37 ans bu ñu demee ba Cheikh Ibra war a dem waaw foofu nag la Cheikh Ibra taxaw exiger ni moom dëgg na feeñ maanaam seen accompagnage boobu faaw mu wax ko mooy kan 1930 mu woolu ko mu bàyyi ko fii Thiès dem Njaaréem ñoom ñaar képp ñu am jataay mun ko dama laa wër naa la pay juróom-ñaar te xamaguma yaay kan dama bëgg nga wax ma sa bopp ma bala maa dem mun ko faal ndax may nga ma ma wax la sama bopp foofu dëgg rek mooy taxaw mun ko may naa la nga sa bopp mu ne ko fi ma sañ yam ak yow gis nga ba tey gis nga xeetu waxan bi muy wax donc loolu am na lu muy nëbb mun ko fi ma sañ a yem ak yow maay Abdullahi mu njëkk di Abdullahi mu mujj dégg nga li mu wax Cheikh la daana ko mbooleem li yàlla bind li bind lépp mu ngi sama loxo ndijoor bi ma téye maam Cheikh di dégg daal teg daal ko loolu de weddiwuma ko suñ bàmb sama sang ba weddiwu ko mun ko àdduna de li muy yaatu yaat yéen ñaar dong laay waxal mu wëlbatikuwaat waxaat Cheikh Ibrahima ni ko maa di Muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa lu amul benn équivoque dégg nga ko de mun ko sama jëmm ji mooy jëmmi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu doy waar maam Cheikh ni ko weddiwu ma ko sëñ Bamba sama sang ba weddiwu ko ndax gisoon naa rasulullahi sama wanag waaw gis nga yoonu ma yoonu baatin la loolu lépp da siy dugg maam Cheikh ni ko gisoon naa rasulullahi sama wanag te jëmm ja ma gisoon ak sa jëmm ji lot naa si di xàmmee leen kooku lam ak lii nga sol mun ko lu yàlla bind sama jëmm jee tax xool responsabilité boobu mun ko lépp lu yàlla bind sama jëmm jee tax ba noppi tamponu boobu baa ngi fii tamponu boobu bi mi ngi fii si diggante ñaari mbagg yi ndax jëm moom lu nu mel àdduna mosu koo gis te du ko gisati parce que koo xam ne diggante ñaari mbagg yi rek toll na si yaatuwaay dënam toll na si mètre yaatuwaay dënam toll na si mètre lii sew ndigg li tànk yi bi ñu ko nattee toll na si cinquante deux centimètres tànk yi cinquante deux centimètres est ce que loolu pointure nit la ay cëram dafa mat suñu ñaari cër maanaam suñu ñaari tenq nii mooy benn loxoom suy waxee fii kàddu gi day riir ba kangé mi nga di ko dégg su la jubee di dox day mel ni ay bërigo ñoo ñooy dox si biir suuf si kenn du ko sànjaaf kenn du ko ñoox leer yi ray ray si yaramam moo raw jant te day soppi noonu lay soppi ko nag moo tax ku mbërëm kàkkatar tey nga ñëw mu xees pecc léegi léegi nga ñëwaat fekk mu xëy léegi nga fekk mu ñu nu ko sopp mën na ànd ak yow nii di dox ñett mu muy dox nii trois pas fekk yaa ko sut xool su doxee ñetti jéego tiim na la tiim na la sa kaw te lu mbooloo bari bari bari mooy tiim ñëpp kenn du ko tiim lu mbooloo bari bëri day sig day mel dafa dafa siggeeku waaw te moom te moom est-ce que est-ce que mën mën kenn mën na koo nataal ba jàpp ko kenn mosu ko nataal ndax am na lu jàlloon si net bi ñu am góor gu ñu indi naan kii ku tedd ki la bann Israël ni nasraan yi fii ñuy wax base militaire te nekk si jaxaaw boobu tubaab yee fi nekk daan nañ jël tolloog six avions di survoler mhm. di survoler fii penc mi ngir bëgg rek am nataalam mhm. ndax taar bi fi moom ak li fi mel ne tubaab yi ñoom mosuñoo gis lu ni mel ba pare ñoom seen wàll bopp mosuñu ko mënuñu koo dékku tey jii li tubaab di bëri dëgër dëgër fit dëgër fit comme si janool nii faw da ngay sol ay noir fumé ay noir fumé yu ñuul kukk ngay sol pour mën a wax ak moom ndax nee li si li génn si si kii si si bët yi ak si xar kanam gi sa yaram mënu ko attan waaw loolu ay ay ay mbir la yoo xam ni ñu doy waar waaw kon bi ma lool loolu Cheikh Ibra maam Cheikh ni ko atum yabal ma bi ma sama borom di yoor ma war a liggéeyal borom Tuubaa yàlla damaa woo ba mu ñëw mu daal may dey ab secret nee na secret bi mun ko mooy lan mu ni ko boo liggéeyee xaadim rasul ba liggéey bi jeex muhammadu rasululaahi salaatu wax dina la gane si jaxran kon dikkik muhammadu rasululaahi Sëñ Tuubaa dañu woon Sëñ Tuubaa dañu woon ëllëg luy doon kéemaan yàlla nanga ma ko indil kon sama ma ko wommatee fële indi ko fii mboole mandarga saayir yépp nag daj si moom kàpp wax ma moom baatin bi baatin bi moom boo fa duggee <laughs> lu gaaw gaaw da nga dañ lay jàpp waaw ka tubaarkalla saayit sax mën ngaa wut ay di wut ay ay ay ay faux fuyant naan lii amoon na lii amul waaw te lépp dafa daje fi moom nee na bu fekkoon li mu wax du dëgg wax ñu bari tey am na nuñ ko jàppee ku fees yàlla di wax loolu gis nañ ko waaye nee na bokkuma gaañ yi nga xam ne dañoo màndi si leer yàlla yi di wax inna allaha jaxala nii muhammad rasulullahi la wax xool responsabilité boobu dafa dugal yàlla naka yàlla moo ma def mooy muhammad rasulullahi kañ la ma ko def si bu njëkk kañ si bu njëkk lu jiitu muy sàkk dara waxtaan bi de am na importance te mu mel ni tamit comme ni ñu koy waxee lépp lépp lépp mënuñu ko wax waaye tamit bokk na ci bi gën a teera teer bi nga bokk na si moom bi mu dëdduwee mu mel ni tubaab yi doon fi amal ab chantier waaye bu ñu demoon rek ba jub fi nga xamante ni foofu lañ ko euh, denc oto ndaraan yéeg lépp loo xamante ni transporteur la du mën a euh, jaar foofu bal ñu dem nag ba ñu daal def gëstu ana kan moom moo leen xamal ni bërëb boobu kat nitu yàlla la te war nañ ko aménager. waaw lu jiitu muy dem waxoon na njabootu boppam rawatina taawam muy mag yi soxna Sebata Aïdara di soxna Maguette. ni ko bisa ngi ñëw fekk waxoon na leen ni bisa ngi ñëw yoon dina jóge penku yoon jóge sow ñu daje fi man su boobaa nag nee lu mel ni ay xeetu gunóor ñoo may wër xeetu gunóor tey mi ngi ko misaale oto yi wax waxat na ko ci ak dundam waaye laata muy dem dafa wax tamit euh, taaw mu tedd ba soxna Maguette Abdou Aydara yàlla na sama borom dolli ay leeram bu baax nii bu ma fi mu ni ko bu ma fi bàyyi ko ba mu am juróom-ñaari at ban Israël nañ fi ñëw am lu ñu bëgg ci barab bi waaye nag li ma lay dénk yow su boobaa na nga taxawee nee nga seetaan ma ak ñoom ndax maa nekk sa xeexukaay ba te maa leen tiim 1943 la fi bàyyi ko si weeru rajab bi nga xam ne denc nañ ko fii ba mu tëdd fi juróom-ñaari at ci la la waxoon daal di egsi ku ñuy wax commandant lami commandant lami histoire xam na ko euh, muy Pierre Lamy ñëw indi décret boo xam ni gouvernement français moo ko signé ndax boobu Sénégal accédé wul à l'indépendance ba pare gouverneur yi nekk ci Afrique occidentale française ñoom ñëpp signé signé nañu ni route nationale bi fi lay jaar te barab bi dañ ko war a toxal yóbbu ko bàq ya ndax fii mi ngi ko sanc 1918 léegi bi Lamy ñëwee yor kayit gi laajtee ni ana doomam ñu yóbbu ko foofu yóbbu ko soxna Maguette fekk mu ngi sol tout blanc sol ay gants ñu ni ko dañoo jot décret bu bàyyi ko France barab bi dañ ko bëgg a toxal yóbbu sa waajur wu tëdd bi fee te tëli bi jaar dem lan nga lan mooy sa xalaat muy leen man de la sama sama baay la ma waxoon si laay jàpp waxoon na ne bu ñëwee boo leen ñëwee naa taxaw ne ma seetaan leen ak moom daal ne yéen a ngi noonu barab bàngook <laughs> ñu commencé daaj seen daaj seen i piquet indi seen quatre plaques bi nga xamee ni taal nañu ba machine bi war a song barab bi rek si la chaîne bi seeni moteur bi laa dagg si saa si loolu moom euh, moteur boobu kenn waxatu ko ñu daal koy fexe ba lenge yóbbu ko loolu nag jaaxal leen ñu daal dem woy làbbe bi bi làbbe bi dikkee ñun ko dañoo bëgg nga xoolal lan moo dagg seen moteur bi ak lu tax oto yi mun ñoo si fii si xabur bi bi mu duggee matul fanweeri seconde moom làbbe bi mun naa ñu daw génn waxul tubaab bi dara bi mu demee ba taxaw tubaab bi ni ko waa lan moo sabab yow nga daw rek génn te waxoo ñu dara mu ni kii mu ni daan naa dem si barab fekk ka fa nekk am num nu mu toogee wala am nu mu tëddee waaye kii mi ngi toog si chaise leer boo xam ni chaise bi day day warandiku chaise roulante te lu ko jegee ñeent fukki mètre ñeent fukki mètre lu ko jegee ñeent waxuma la Thiès Thiès moom du bokkati Thiès du bokk dañ koy rey définitivement waaye àdduna si boppam maanaam day yàqu te na muy yàqu mooy asamaan day wàcc si kaw suuf labbi bi wax leen loolu daay li ma gis kii bay boo ngeen fexe ngeen wërale ko ngeen tegg ko lami boobu mi ngi ànd ak uh, adjoint bu ñuy wax Buffet c'est un français léegi Buffet moomu la jël yónni ko sëñ Fallou sëñ Fallou ni leen man de du ma toog jataayu sëñ Tuubaa ba noppi di seetaan àdduna di tukki barab boobu di ngeen ko fi bàyyi dal ne leen waa jaar bu nar a jur fitna ana teggi da ngeen suñ fàllu wax nga ni fi ngay jaar bu nar a jur fitna ana teggi mm-hmm. mun waaye def leen ko nii nii waaye nii waay muy muy rond bi tey jii tey ji moo indi lii mm-hmm. tey soo xoolee barab bi angal sañ fàllu ba pharmacie du camp mm-hmm. turu Muhammadu waaw loolu tamit ñu bari sedd wuñ ko si Muhammadu la tëddee miim alam del gaa nga fële yat bi ñëwaat bi mooy ñaareelu miim gi si la nekk nga demaat fee mu nekk ak xam nga rond bi yàggul